bisimilah barke sëñ Touba kon ñu ngi nuyu ñëpp tey ziyaare ñëpp tey jégul ci kàddu yi yaakaar naa ni ko sëñ Yuusu waxee leer na kàddu gi moom benn la mooy dañoo doon ay murit doon ay taalibe di sàkku ngërëm sëñ Touba kon nag li ñu indi ci daara ji mooy jëfe ndigal bàyyi tere nu ma ko faree dox nag ay mursal lañ mursal nag mooy ku yónni ñun nag yaakaar naa jataay boo xoolee muy man muy si mu joxani muy si matar jenn si souleyman Fall ñu leen tek sa bop ba ñu and ak ay euh, lu tollok ñeen fukki kurel ak ben jissé leen ci liggéey bi lool nak du sun njàmbaar du sun juddu du sun askan lépp ndimbal sëriñ bi la kon euh nañ moy tunduko mu ji sa mu reer ñi wax ni ñoon sëñ yusuf diop bi fi nek ñoon sëñ Lam Diouf ñoon sëñ Musaa Njaay ñoo ngànkoon liggéey bi kon nag dafa dox ba egsi suñu loxo ginnaaw dafa egsi suñu loxo nag nañ fexe nag ba ñu nekk si suñu ginnaaw ànd ñu liggéey sëriñ bi bu ëllëgee euh, bu ñu koy nettali ji fu ñu taxaw dañu mën a sikki kon nag ay mursal lañ mursal nag mooy ku ñu yónni àdduna si yëpp ñu ngi bàyyi xel luñ sol gone yu mel ko lu ñu naan gone yi naan ko luñ fu ñu tëddee lu ñu doxee gone yi doxe ko kon nag benn googu sëñ Muntaxa wax yaakaar naa euh, euh, tey moom jeex na kon nag ndigal li mooy jëfe ña nekk Dakar àndul doon benn ña nekk Touba si njiit njiital si Matar Jenn àndul doon benn kuréel national gi tamit si Matar Jenn nee naa ko place bi ñu toog euh, suñ Touba la njër seere mate na ko mën na koo doon kon nag ànd na ak yow nga nekk suñ kanam ñu ànd yoo topp liggéey suñ Touba jërëjëf. jërëjëf sëñ Abdoulaye jërëjëf itam li nga rek noonu loolu Sëñ Tuubaa rekk nekk ci yow ak xasida yi ak mbaaxu Sëñ Tuubaa gi moo la topp ni mu toppee njabootu Sëñ Tuubaa gi kon jànki di xasida yi war nañoo sant bu baax a baax di sant sëñ jëwriñ sëñ Yuusu bu baax te xam ne kàddu yi dégg nañ ko bu baax soññe yi dégg nañ ko bu baax ci melokaan ni ñu war a mel ak ni ñu war a yokkee sunu dogu ak suñu jublu sëñ bi ndax gone yi ni ko sëñ Ablaay waxee ñun rek la ñuy roy ñun roy ci lépp kon responsabilité bu rëy dafa dafa aju suñuy wagg kon jëwriñ loolu fas nañu fas fas nañu koo gàddu bu baax a baax parce que fas nañu ko yéene ànd ak gone yi bu baax a baax ndax amuñu dul ñun kon jànkatu xasida yi ma barkeelu ay xasida ay ay bëy rek sëñ bi li mu wax ne bismillahi rahmaani rahim haajat qasaidi xuluubal xamala lil harshi wa hiya busharun lil kamala haajat qasaidi xuluubal anbiya mahal malaikati hinda rabbiya haajat qasaidi xuluuba jundi man lohul baraaya wal fihaalu wa zaman xasidati min muxjisatil muntaqa salla alayhi man hadahu wantaqa wax ne xasida yi day yëngal xolu malayka yi nga xam ne dañoo yenu aras xasida yi day yëngal seeni xol nee na xasida yi day yëngal xolu lan bi yaaw yi wax yóbbu soron lil kamala daal di wax ne xasida yi day muxjisay muntaxaa la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ci muxjisay yonente bi la bokk kon li ñu am rëy na lool li ñu am rëy na lool nañ góorgóorlu te laxasaayu dafa fas yéene doon yi taalibe bañ a bañ a bañ doon lenn dudul ay taalibe rek ni ko jëwriñ sa soo waxee léegi kon dégg nañ soññe bu baax a baax fas nañ ko yéen a gone ànd ak gone yi jërëjëf asalaamaaleykum bismillaahi rahmaani rahiim barke borom Tuubaa xanaa da barkeelu rek jafe ndigal li ndax xasidi Sëriñ Tuubaa yi nekk ci du njàmbaar ak njàmbaar mayewu ko sëñ bi bind xasida yi waaye mooy tànn ñu koy jàng ni mu yebale woon sëriñ ma sàmba bi mu koy wutal jàngkat yi ci baati noonu la tànge jàngkat xasida bëgg a jàng xasida taxut nga doon ab jàngkat kon na képp koo xam yaay nettali xasida am na yu bari yoo xam ne war nga ko sàmmoonteel ci sa jëmm ji nga xam ni fépp foo mën a nekk fu nekk sëriñ baa ngi jàkkaarloog yow ni sunu borom di jàkkaarloo yow nga gën a warmaal sa jëmm ci lépp loo xam ne mooy jëf yu sell yu tege ci yoonu siraatul mustaqim kon ñu ngi ciy soññaat ñu yëpp te xam ni njàngum xasida du àdduna ak jaamu yàlla rekk la boo duggee ci jàkka ja di jaamu yàlla boo génnee sëlmal nga boo dee jàng xasida boo noppee fa nga ko doon jàngee sëlmal nga moo ki aj màkk bu ajee alhaaji lay doon waaye bu fa jógee turam war a dellu siwaat ci moom kon noonu xam ne xasida yi jaamu yàlla la liggéeyal sëñ Tuubaa la bañ koo jàpp ngir àdduna wasalaamaaleykum wa rahmatullah dugg nañ dugg ci biir kàddu yëpp kon maa ngi jéggul sax lu ma koy tëjee mooy ndigal li moom yaakaar naa dama ko waxee léegi rek sëñ Youssou wax na ko léegi waa kër sëñ Massamba sëñ Massamba moo tànn kuréel gi doon ko saytul sëriñ bi loolu nag yaakaar naa ña fa nekkoon doon ko defal sëriñ bi ba tey di dañuy tudd seen i tur tur yooyu nag dañu àndoon doon benn ah ku nekk lu nga yéene sa bopp yéene ko sa morom bañ ne ku si manqué. ñu sëriñ bi laaj na sëriñ mi da ko tudd dane man ibro Buuba Moussa Diagne Seexu Ndaw Ali Silla Modou Kan Dia Makhoudia Silla la Samb Alaj Seck Ousmane Sow nee na fukki yi ku ma sawar manqué ma laaj la kon nag ñi ñaan ci barke barab bii comme noonu ñu ko tuddee ah bu ñu tuddee sëñ Matar Diène sa bopp ba sëñ Modou Jaxaane sëñ Jilim Ndiaye sëñ Souleymane Fall nañ ko yóbbu ko kenn manqué kon nag noonu lañ ko fas yéene te lii su matt la du matt sëriñ Yuusu du matt sëñ Mbàkke Tuur du matt keneen ñun suñu borom jiital ñu nekk sa kanam kon nag nañ fexe ndigal li joxe nga xam ne sëñ moo ko samp teg ko sa kanam buy wax moom lay waxal buy laaj moom lay laaj buy yónni moom lay yónni kon nag ñun nañ teg sa kanam kon nag nañ fexe lii ñu joxe ndigal mën naa nekk ndax sëriñ bi dama ko seet ba xam ne mën naa nekk te dara mënu ko yàq kon nag na ko waxee yoon nag kàddu Sëñ Tuubaa la wax te kàddu Sëñ Tuubaa lu mu wax day am kon nag mboolem kuréel Hizbut Tarqiyyah ña nekk Njaareem ña nekk Gosaas ña nekk Ñaaxar benn lay doon jekk nañ dañuy jël suñu oto daara ju si ne danañ fi yandu fanaan fa boolee ñëpp mu doon benn incha allah.